di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi daje tey ci coalition Sonko nga xam ni dañ ma cërale ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi war a yëkkati seen kàddu pour wax ak askanu senegal wax ak àdduna bi yëpp kon kilifa yi nga xam ni ñoom noo toog ci taabal ji ak ñee ca wet ga nga xam ne ku ci nekk ci ñoom ñu bëri ci ñoom ay kandidaa lañu woon ci élection présidentielle yi nu jublu te ñu bari ci ñoom d'accord a tege nee seen candidature à l'élection présidentielle ngir topp ci ab candidat boo xam ne jàpp nañ ni ñu ëpp ci Sénégalais yi moom lañ bëgg a fal le 25 février 2024 mu tudd Ousmane Sonko kon kilifa yii fi daje ay kilifa yu mag lañ parce que gis ngeen leen ak seen dayo mais malgré loolu danoo jël seen responsabilité gis ngeen naam déposé woon nañ ñoom ñëpp dañoo bëgg a dooni candidat ñu ëpp ci ñoom nee nañ dellu nañ ginnaaw ci li ñu doonoon candidat pour nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko pour dooleel candidature am ndax rek bëgg lu neex senegale yi parce que ku bëgg lu neex sénégalais yi da nga nangu ni sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko nekk candidat ñu fal ko mu joyantiwaat réew mi kon nag loolu moo tax nguur gi nu jàkkaar lool du ma ñëwaat ci li ayib dafay wax sànq ndaxte nguur gi nu jàkkaar lool bi ñu dëpp ji génnee ci élection 2019 yi ñu gis ni président Ousmane Sonko ak score bi mu defoon en 2019 ñoom seen biir sax taxaw nañ waxal ko seen bopp ne bi ñu gisee ni kii kat bu ñu jógul ci moom 2024 dafa ñëw nar a ñëw faagaagal ñu jaar suñu kaw jàll kon nañ wut ay pexe yu ñu jaar ba moom du mën a doon candidat kon depuis 2019 ci la nekk jóguñu ci di wuti pexe mais olof yi dañ ni yàlla moo gën moo ay ci póotum buur day fóoti yéreem yu weex tàll ba weer mu ñëw tawaat ci kawam fokk mu dem daal di fóotiwaat kon nag tey ñoom lii seen jafe-jafe mooy temps wu fóotiwaat amu fii ndaxte dañuy sëgg bëre dañuy sëgg bëre ndaxte ki nga xam ne moom moo leen tiital ba tax ñu wut seen i ndëgg sërëx lu ne ñu jiñ ko ko yéen ñëpp ngeen teewe àdduna bi yëpp teewe lu ne ñu jiñ ko président Ousmane Sonko ba mujj sax ci ne daa sàcc ab portable lan ko jiñoon yëpp nërmeelu juge yi jël seen responsabilité mu commencé ci juge bu Ziguinchor du ma ci dellusiwaat ay dafay wax na ko sànq ñu ñëpp ñu fekkee procès ba juge bi ni leen yéen gouvernement bu Sénégal ak agent judiciaire de l'État ak say avocat yu bari nga xam ne li ngeen di fayee sax seen sunu xaalis la ñun sénégalais yi te Ousmane Sonko bokk ci sénégalais yi loolu rek problème la ci li nga xam ne moo xewoon ca Ziguinchor ak fii ci Ndakaaru waaye ñaari juge yëpp jël seen responsabilité daan ni déglu nañ partie yëpp. déglu nañ avocat yi nga xam ñoo layal nguur gi déglu agent judiciaire de l' état déglu avocat yi nga xam ñoo layal Ousmane Sonko ñu ne ñoom daal li ñu gis mooy Ousmane sonku dañ koo bëgg a jaay doole kon nañ ko delloowaat ci biir fichier électoral bi kon nag Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiche de parrainage mu dem defi parrainage am comme ñëpp loolu ñaari juge yi wax muy bu Ziguinchor comme bu Dakar Sénat bu njëkk bi waxoon ko loolu lépp ñu tege ko nee di jaay doole ñoom waa daaf ñu yore fichier électoral bi di jaay doole ñoom waa direction générale des élections di jaay doole caisse de dépôt et de consignation également di jaay doole waaye lu nu fàtte mooy réew mi dafa am banqaas boo xam si ci mbirum élection moom cote dong moo mën a décider muy le conseil constitutionnel te conseil constitutionnel dafa am lu mu àtte woon ci ginnaaw li mu àtte woon ci ginnaaw sànq ay dafa ñëw na ci mooy li xewoon en 1998 ku tudd Insa Sankhare mu dem yore liste élection député m war a dem trésor public bu Dakar jour boobu lañ doon tëj euh, élection yi pour ku bëgg a nekk candidat nga andi sa ñetti millions yi nga waroon a joxe au lieu ñu ubbi guichet unique parce que élection yi dafa waroon a jeex à minuit 18 jot ñoom ñu tëj seen i bureau ñoom waa trésor dem ñibbi moom mandataire bi mu dem di déposer 3 millions ñu ne ko tëj nañ mu dellu mu de l' intérieur ministère de l' intérieur ni ko ñun mun ñoo jël xaalis bi pour ñu bëgg koo forclos mu daal di muus bàyyi ba altine ja naam dele ba jàll na mu yóbbu ab huissier mu constaté ko. mu déposé xaalis ba jël kayit ban ko jox mu boole ko ci dossier yóbbu ko conseil constitutionnel nous étions donc en 1998 conseil constitutionnel daal di àtte daan kii nga xam ni demoon na pour déposer ca délai la demoon pour déposer waaye administration bi ñoom ñoo jëlul matuwaay yan waroon a jël pour permettre ko mu déposer avant minuit. comme wane na ci ab huissier bu ko constaté que dem na sax ba ministère de l'intérieur pour wane ne dafa bëgg a déposer ñu bañal ko ko kon kayit woowu day remplacer kayit wa nga xam moom la waroon a am avant les délais kon loolu li ñu ci jàngate mooy comme ni ko ayib dafay waxee kayit yi ñuy laaj muy juróom-ñeenti kayit juróom-ñeenti kayit yëpp Ousmane Sonko am na ko ndaxte bu mu ci amul ça veut dire que ñag ko waroon a jox moom wane na ay firnde yu tax ni wane ni dem na fa pour jëli ko li ñu tuddee en français les diligences utiles ont été effectuées par le mandataire de Ousmane sonk muy Ayib Daffé kon comme la waroon a def yëpp def na ko bu ci nekk constaté na ko par huissier huissier ba déposé na kon la ñuy xaar ci conseil constitutionnel mooy mu dàbbaliwaat jurisprudence bi maanaam la mu dogaloon ca 1998 mu dogalaat ko te maa ngi leen di fàttali loo xam wax naa ko démb ci sama chronique ma ne dafa am professeur bu mag bu tudd Sidi Alpha Ndiaye nekk kàngam fii ci université bu Dakar démb mu bind texte bu rëy boo xam Sénégal gépp ko partagé ma kontaan ci ni ci ni ko sénégalais yi ma ne kët kii comme tubaab la bind bàyyil ma reeteet ko daal di ko faram fàcce ci wolof pour sénégalais yi xam nan la bind mais biñ ko bindee bi ñu ko ñu ko bi ñu ko faram fàccee ba mu leer sénégalais yi sénégalais yi dañ koo partage ñëpp gis ni kon gën naa leerati parce que dese woon na sax leer seen bopp ci ñeen ñi parce que ñëpp xëy na amuñoo niveau intellectuel bi leen mënoon permettre loolu. kon nag biñ ko euh, biñ ko jàngatee ñu gis ni li mu wax en tant que universitaire parce que nag rôle universitaire mooy bu ne réew mi nekkee ci jiixi jaaxa nga taxaw àtte taxaw jël sa plume daal di wax li nga xam ne mooy dëgg comme Sidi Alpha Ndiaye loolu mu def démb sénégalais yu bëri rafetlu nañ ko li mu wax nag lu leer la nee na. kenn mënta tere Ousmane Sonko nekk candidat ci élection présidentielle incha allah yu ñu jëm le 25 février 2024 parce que amul lenn loo xam ne mën nañ ko ko opposé luy tee mu nekk candidat léegi nag comme léegi loolu leer na déposé nañ candidature bi ñi ngi xaar conseil constitutionnel def tirage bu ñu defee tirage ba pare léegi nag bu ko defee conseil constitutionnel ci lu ñu gëm ñun mooy mënta weddiwaat boppam dana jël dogal daal di génne listu candidat yi Ousmane Sonko nekk le euh, euh, le candidat de la coalition Sonko président bokk ci élection yi incha allah sénégalais yi fal kin bëgg a fal. léegi nag fan yi gis ngeen ni ñu ngi jéem a ci loonu nu jafandu bi ñu demee ba xam ne ñaari juges yi nañ Sénat àtte na ñëpp àtte nañ Sénégal gépp sa àtte nañ ñu xam ne kon foofa lañ jafandu woon dëgërul gis ngeen fan yi ñu yëkkati dossier Mame yi ñam bi ñuy yëkkati dossier Mame Mbaye Niang c'est parce que ñàkk nañ fële moo tax ñu koy yëkkati léegi nag li tax ñu yëkkati ko mooy dañoo jàpp ne man nañ faa am dara lu jafandu parce que xam nañ ni seen seen yalwaan këpp na léegi nag dañ leen bëgg a leeral yéen sénégalais yi boobu dossier tamit seen yalwaan këppwaat na ni seen yalwaan këppwaate mooy ci seen xarañte ak nekk ci dëgg parce que Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg te boo nekkee ci dëgg yàlla day leeral sa xel ay avocats Ousmane Sonko dañoo soulever ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 260 du code bi nga xam ni ñoom ci lañ sukkandiku pour daan Ousmane Sonko seen juróom-benn weer yooyu ñu ko daan ci mbirum Mame Mbaye Niang randal suñuy milliards ba noppi di porté waate plainte ñu ne dañ koo caa daan juróom-benn weer léegi nag ñu ni ndax Ousmane Sonko daa duural Mame Mbaye léegi nag loolu ñu wax malheureusement pour eux lanu daan Ousmane Sonko juróom-benn weer ñu ngi ko sukkandiku ci article boo xam ne dafa waroo ak constitution bu Sénégal ci article huit bi donc l' article deux cent soixante bi ñu sukkandiku pour daan Ousmane Sonko juróom-benn weer njum dul tëdd ba noppi di ko teg ay amende boobu article ñu sukkandiku. mënuñu koo appeler appliquer Ousmane Sonko ndaxte lañ fa wax ci article deux cent soixante ba dafa waroo wala dafa wuute ak li constitution bu Sénégal wax ci article huit bi léegi nag comme avocat Ousmane Sonko soulevé nañ l' exception d' inconstitutionnalité maanaam waroo bu am ci liñ daan Ousmane Sonko wala fi mu sukkandiku pour daan ko ak li constitution bu Sénégal wax liñ bokk ñun ñëpp kon léegi li loi wax. te professeur Sidi Alpha Ndiaye dem rappelé ko ci texte bi mu bind Sénégal partagé ko mooy Cour suprême. naam jàpp na datu le 4 janvier pour àtte mbirum euh, Mame Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ci cassation mais munu ko àtte tant que conseil constitutionnel vidéwul li nga xam ni moom mooy euh, exception d'inconstitutionnalité bi nga xam ne si les avocats Sonko ñoom ñoo ko soulevé kon ça veut dire en terme clair mooy lan mooy su fekkente ni yoon lañ doxal ñeenti fan ci weeru janvier bii nu jàpp mbirum Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko kenn mënut a àtte parce que dañoo cour suprême selon la loi organique de la de, la cour suprême et du conseil constitutionnel il faut mu saisir le conseil constitutionnel bu conseil constitutionnel àddoo ba pare wax ndax article boobu dëppoo naa constitution bi wala dëppoowu la constitution bi cour suprême nag amul benn sañ-sañ ci naan non exception d'inconstitutionnalité bi avocat yi Ousmane Sonko jaar na yoon wala jaarul yoon di apprécier amul fenn fu mu mën a apprécier loi bi may ko. conseil constitutionnel kese cot dong moo ko mën a àtte bu ko àttee ba pare nag su ne waroo am na mooy kon lu ñu daanoon Ousmane Sonko nërmeelu na bu nee waroo amul moom muy doog a programmer audience am lii mooy dëgg lii la yoon wax du samay wax loolu lañ tënku ñun àdduna ñun Sénégal gépp kon nag li ñu bëgg a wax foofu mooy li ñu bëgg a wax foofu kon ci gàttal mooy Ousmane Sonko candidat la incha allah ci élection yi nu jëm seen njuuj njaaj yi doon yëpp xëpp na seen kaw jàpp naa ne tey Macky Sall pale bu dee am na ku muy mere bokk na ci ñaar nit yu mu war a mere ndax li ko dal ñoo ko yóbbee ñaar nit yi mooy kenn ki mooy Moustapha Diakhaté mi ko waxoon ne ko dàqal Ousmane Sonko ci fonction publique jàpp naa ne Macky Sall tey bu toogee ci pale bi di rëccu loolu bokk na ci lu muy rëccu kim ciy teg mooy Ismaïla Madior Fall mi ko gëmloo ni ko Ousmane Sonko ñaari nit la Ousmane Sonko bi sàcc portable bi bokkul ak Ousmane Sonko bi nga xam si moom lan jàpp donc dafa am ñaari Ousmane Sonko yoo xam ne wuute nañ ba ba koo xam ne atte nañ ko te fekkewu ko loi bi ni buñ ko xasee jàpp lan ko atte woon nërmeelu na lan ko daanoon nërmeelu na moom Ismaïla Madior Fall dem cappale ba toog ak Macky Sall xëy na ndeysaan xamul dara ci droit mais bu xamoon ci droit dara dina xam ni kii li mu koy wax. waxam jii muy wax ajalum ngooñ mu gëmloo moom Macky Sall ni ko Ousmane Sonko min jàpp wuutewul ak Ousmane Sonko min doon topp boobu léegi léegi nag loolu moo dugal Macky Sall ci erreur léegi nag juge yeeg ñëpp xam nañ ne ay tappale la donc Ousmane Sonko minu jàpp heure bi mënatuñ koo gàll lenn lu jëm ci mbirum euh, procès boobu ndaxte ban koy atte fekkewu ko woon te loolu buñ la attee te fekkewoo ko ci mbirum crime buñ la jàppee day nërmee la lépp luñ la daanoon kon loolu leer na nañ kon ñaar ñi nga xam ne ñoo dugal Macky Sall ci erreur yi mu def di jaay doole doomu jàmbur ba àgg fi mu àgg di ñoqali di dem di ñoqali di dem ba yàlla subhaanahu wa taala ñëw arrêté ko ni ko hey président Macky Sall mbir mi nag fii la mën a yem bàyyil sénégalais yi ñu àtte kon sénégalais yi incha allah le 25 février 2024 incha allah ñu fal massivement le président Ousmane Sonko comme cinquième président de la République du Sénégal tàccu leen loolu léegi nag in English in English yes I would like to say a few words in English because it's important to the international community uh, it's important that we talk uh, with the international community in Senegal which used to be one of the strongest democracy in the world. Today, we are facing a situation that we never faced in our history. We have a candidate whose name uh, is Usman Sonko, who has been tortured everywhere. Uh, the outgoing president, after announcing that he was not going to run for a third illegal term, he decided to prevent Usman Sonko from being candidate for next presidential elections. And this is something that can create turmoil in Senegal, it can create troubles in Senegal, and we want the international community to know it. All the judges that have uh, taken this case, they have decided that Usman Sonko should be uh, candidate for next presidential elections. Now they have decided to prevent him from running for next election. That's why they refuse to give all the papers to his representative, Ayib Dafe, so as to submit and to withdraw his papers. Now, with all that we know from the former uh, judgments from the, uh, from the Supreme Court and from the, from the Constitutional Court, we know that even if there are some missing documents, it has been replaced by uh, Uh, by, by what uh, we, we notice in the whole process that they refuse to uh, let him withdraw his papers. So what we can say to Senegalese people and to the international community is Ousmane Sonko is candidate for next election, next elections in Senegal, and we want President Macky Sall to stop uh, using strategies to prevent him from running for elections. And if they want peace in Senegal, they have to let President Ousmane Sonko run for next presidential elections. Okay. Thank you very much. Thank you. Mr. Dam. Pleasure.